Euh, de de gis la voilà. mais c'est moi qui te remercie euh, Pape Cheikh et à travers ma personne, c'est vraiment l'initiative hein, des anciens pour la réhabilitation du lycée de la Sadji de Rufisque, mmh. parmi les célébrités de ce lycée, Boubacar Diallo, que je salue au passage, et puis aussi remercier évidemment tout le groupe TFM à travers la personne, en la personne de son président, le ministre Ndour, mais aussi évidemment vous, ce plateau charmant et cette ambiance qu'on ne retrouve que dans la matinée. Mais na fi léegi c'est alors que séeréer rek la quoi. séeréer kese la léegi j'ai une question j'ai une question la bëgg a laaj da nga may uh-huh. tontu. Euh, da nga ciy tontu franchement. d'accord séeréer nga wala nit nga. <laughs> tu ne me donnes pas l'occasion <laughs> man en fait séeréer la. donc doo nit. <laughs> tu sais pap dafa bëri ay kalu séeréer donc il les fatigue tellement mhm. séeréer bu mu romb lu mu koy njëkk laaj séeréer nga wala nit donc da nga jëkk gis séeréer bu taxaw naan nit la après on lui kon doo séeréer la ndax donc tukulóor la. voilà donc <laughs> voilà alors euh, yéen a ngi ci euh, loo xamante ni wax nga ko léegi jëm ci euh, ancien élève yu lycée Abdoulaye Sadji on se rappelle l'année dernière xaw ma il y a deux ans. Mm-hmm. amoon na initiative bu mel noonu képp kuy kilifa nga delluwaat ci école bi nga xamante ni moom nga jàngee. Mm-hmm. alors tey defe naa honneur la yow nga nekk kilifa fii ci Sénégal tey nga delluwaat ci école boo xamante ni jaar dafa d'abord comment est née euh, euh, cette initiative initiative des anciens euh, pour la réhabilitation du lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque. alors da ngay wax français la wala wolof. waaw wolof ñaar ñaar yomb ci tukko rek. non non non franglais. <laughs> franglais franc wolof. waaw en fait <laughs> waaw pour sama maam mën na comprendre mm. initiative pour la réhabilitation du lycée Abdoulaye Sadji donc ce sont les anciens qui ont pris cette initiative tout simplement parce que le lycée Abdoulaye Sadji

l'a rebaptisé École euh, Lycée Abdoulaye Sadji, du nom de, de, ce romancier que tout le monde connaît et qui n'a pas lu Nini Mulatresse du Sénégal, Maïmouna et j'en passe. Mm -hmm. Alors, depuis 1972, le Lycée Abdoulaye Sadji a formé mais, des générations de cadres, ah oui, a formé l'élite africaine. Mm -hmm Mais euh, on s'est rendu compte qu'au fil des années, que ce, euh, que ce lycée euh, n'a pas finalement aussi bénéficié euh, de euh, tout ce qu'il a fait pour ces jeunes cadres-là. Mm -hmm. Et on s'est dit... c'est-à-dire li mu indil Sénégal Sénégal dafa mel ni fayeeku ko ko. fayeeku ko ndax anciens yi ñoom ñëpp macha allah am na ñu ñu fi tekki ñu bëri. bu ma waxee tekki du koppar rek. Mhm. tekki mën na nekk maanaam yow nga mën a euh, lijjanti communication nga mën a dem si ku ne mel ni Pape Cheikh Diallo nga nekk ah man de tey dama bëggoon réhabiliter sama lycée yow am nga ay koppar mën nañ def partenariat et cetera. donc on s' est rendu compte qu' effectivement ñun vraiment delloowuñu njukkal lycée bi donc loolu moo tax initiative bi juddu bi mu juddoo nag wax dëgg yàlla euh, bi ñu oowee nit ñi parce que man en fait dama leen dab bi ñu oowee nit ñi parce que ñun tam ñi ngi nekkoon déjà ñi ngi ci benn kuréel boo xam ne li ko tax a jóg mooy càmbar environnement Tëngéej ndax ku xalaat Tëngéej gis canaux à ciel ouvert yi on a 13 kilomètres de canaux à ciel ouvert donc ñun suñu initiative ñun bi ñu taxawal moo nekk euh, vraiment permettre un meilleur jam ñaajo moom moo ñuy raw te loolu ñun duñ ko nangu ndax Rufisque fait partie des quatre premières communes quand même euh, donc du Sénégal nous on était avant l'heure en fait des citoyens il y avait juste quatre communes dont Rufisque donc tey ñu mënuñu bàyyi noonu tëngeej dee donc bi loolu amee ñun tam suñu suñu ñi nga xamante ne moom mooy membre kuréel bi ñu invité ñu ci initiative bi man personnellement dama dem rek bokk parce que dama ne lépp loo xamante ni dafay soxal tëngeej doomu tëngeej daf nag mu nekk ancien sadji c'est-à-dire que ancien sadji c'est pas seulement ku waa Caaroy waa Yëmbal waa Mbaaw waa Sébikotaan Bargny ñëpp parce que du du waa Tëngéej rek rek donc ñun ñi ngi oo tey vraiment antenne bi ñu may Pape Cheikh Diallo dafa am solo ñi ngi oo képp koo xamante nii rawatina ci àdduna bi la TFM quand c'est la TFM c'est ici <laughs> absolument des grands des grands moments <laughs> loolu suñu slogan quand TFM mais moi je salue vraiment cet esprit cette convivialité parce que RTS ak TFM yëpp benn la ki nga xamante ni moom mooy tey seen patron di Youssou Ndour ak suñu patron Racine Talla mais ah xarit lañu. et puis dama lay nettali benn benn anecdote moi je suis fan de toi. Mhm. et puis RTS euh, euh, euh, la man pur produit ah, RTS. ça j'en sais quelque chose voilà donc on a on a cheminé ensemble a partagé souvent ay ambiance du couloir. absolument le triangle sud. loolu defe naa Sénégal yëpp xam na ko mais un jour je reste chez moi il était 23 man rek maa fa nekk alors ma jékki-jékki jàpp TV5 qui je vois Nafissatou Diouf mu présenté journal Euh, je t'ai appelé sur le coup defe naa Kia mais may jubilé alors pourquoi je jubile c'est pas que euh, tv bi mais c'est le fait que nga bokk ci meilleure présentatrice télé yi nekk fii ci Sénégal et malheureusement euh, fii euh, Sénégal lu ñuy fat di delloo njukkal nit ki ci bi mu ci tollee donc amul xale amul mag et moi je suis j'ai été hyper donc dama yëg ci kaw canapé bi ma bënn ko di ma fay benn canapé tout ça j'ai la chair de poule parce que j'étais content et hyper de toi quelques jours après je te revois sur la RTS c'est vrai qu'on yu baax ci suñu ay télévision mais TV5 aussi se place ngi foofu. Ah, ah, voilà merci alors juste rek pour euh, tëj parenthèse boobu borom mbokk kenn du ko jëw. ndax li nga wax nii. Mm. nit wax na ma ko bu yàgg. c'était content donc euh, man aussi loolu bettu ci yow te tamit du ma bett nit ñi ma koy dégg parce que man nee naa euh, un homme avec un grand H bu en fait bu intelli bu baaxee si parce que dafa intelligent. Mm-hmm. donc da nga intelligent moo tax nga baax. <laughs> alors y a y a plein de gens certainement qui regardent et que ñu jàngee li lycée Abdoulaye Sadji xamuñu woon initiative bi dugg na. absolument mm-hmm. Euh, actuellement li xew mooy Facebook am na ay adresse yoo xamante ni peut ko joxee non seulement dinañu mën a adhérer dinañu mën a ñëw euh, ci jour yi ngeen jàpp mais aussi dinañ ci mën a dugal loxo ak seen xalaat li nga wax euh, noonu la déjà pour commencer xam leen ne am nañu page Facebook bu tudd SOS Sadji donc boo ko duggee SOS Sadji y a toutes les actualités du lycée mhm. par exemple boo leen fa duggee di ngeen gis ne depuis samedi dernier depuis le 15 en fait depuis octobre pas samedi dernier déjà mhm. que nous déjà tous les samedis à midi on se réunit. Mhm. Donc depuis le 15, on fait euh, des remises, c'est-à-dire que tous les anciens sont invités à venir faire une remise de livres. Mhm. Donc on a dit un ancien au moins un livre. Donc ñëpp xam nañ Boubacar Diallo war na mën a joxe. maanaam rayon armatan quoi. Ah oui, c'est sûr. <laughs> donc c'est un slogan donc tous les samedis mën ngeen fa livre rawatina nag Pape Cheikh am événement bu mag bu ñu dëgmal mu nekk le 5 incha allah bii di ñëw. Mhm. 5 de ces dons-là le 5 novembre au lycée de la SRJ à 16h avec toutes les autorités de la ville mais aussi avec toute l'administration, tout le personnel du lycée de la SRJ, une cérémonie de remise de ces dons-là. Alors peut être des livres, surtout les livres au programme mais aussi du matériel didactique. Alors c'est extrêmement important. On lance un appel à tous les anciens, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger parce qu'on sait que la TFM est euh, a une partie

laa doon jàngee dama la mm-hmm. euh, ce que de l'éducation commencé nañu ak am ngeen contact ak ñoom alors question pertinente d'abord première question El Gorgui Wade Ndoye euh, d'abord initiative bi ma njëkk wax mooy kuréel bi nga xam ne dafay caytu dafay càmbar lépp lu aju ci wàllu gàncax gi maanaam buy topp environnement Tëngéej moom moo ko sos en fait mm. man maa ngi ci biir association boobu euh, ce qui fait que lépp loo xamante ni aussi dañ koy def ci wàllu euh, pour les anciens du lycée moom tam mi ngi ci mhm. donc euh, à travers la magie euh, enfin par la des réseaux sociaux tout le temps on est sur Facebook ensemble par mail et il connaît l'initiative et il est partie parce que qui est Rufisquois mhm. qui est un ancien de Sadji est naturellement partie prenante de cette initiative mhm. la deuxième question effectivement est pertinente et que l'initiative est importante parce que effectivement chaque ancien a au moins moins une appartenance actuellement quelque part. Donc on a beaucoup d'anciens qui sont dans les ministères, dont euh, celui de l'éducation, mais nous-mêmes, nous avons pris euh, donc attache avec le ministère de l'éducation à travers les démembrements de l'initiative pour que ñoom itam ñu bokk nekk ci partie prenante parce que effectivement bu ñuy liggéey lii tam pour ñoom la quelque part. voilà merci. en tout cas merci d'être passé euh, loolu et idée la pour ñun ñëpp ah, képp ku nekk ci réew mi nga delluwaat. Euh, bu la ko yàlla mën loowee ci école euh, bi nga nekkoon non seulement avantage la pour Sénégal mais avantage lay nekk pour école bi mais en même temps ak xale yi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk tout le temps dañuy wax Sénégal lii Sénégal là mais je reste convaincu tellement de ñaxtu y a tellement de choses yoo xamante ne les gens baaxul mais li fi baax ëpp des initiatives comme ça c'est à saluer et à accompagner aussi. c'est à saluer Pape Cheikh et puis li ci gën intéressant mooy euh, tey euh, képp kuy jàngee ci école boobu nga gis euh, par exemple des réussite pareilles yow dina nekk motivation pour yow dina nekk loo xamante ne di nga boo ko gëmul woon sax dinga nga ko mujj gëm. Mm-hmm. et je pense que comme ni mu ko waxee ñu tekki ci dara ñu réussir feneen jóge foofu. Mm-hmm. encouragement, euh, ça peut être bien pour euh, les élèves qui sont là-bas. Absolument. Voilà. Au, au, passage, hein, vos maquillages sont, sont superbes. Hein. Ouais. Ils sont tellement affreux. moom moo ñu ko imposé te xam nga lii dafa métti c'est ce que je vis c'est ce yow tu n'as pas de problème ak Kenkeli Ba santal yàlla lui sama goro la sans xam ko ah parce que je connais très bien son mari ah, on a été à l'UGB ensemble d'accord mais mais mais mais elle nous fatigue ak suñu maquillage yi nii ah oui vas-y initiative bi ñëw na fi surtout euh, jël le Pape Cheikh boo ko gisee daaw rek euh, le président Macky Sall mu ngi ko doon euh, waxaat di ñaax ñi nga xam ne ñooy autorités yi ak ñi nekk ci réew mi di dellu seen école d'enfance on a vu barki démb Baratal li mu mm-hmm. ay xaritam mu retapé école am. le président Abdou Diouf mm-hmm. euh, Ndar euh, gis nañu école am moom itam. li mu ko def moom day dellu sàcc. Nafi dellu sàcc <laughs> et bon li nga wax dellu. seen i collège mm-hmm. pour jàppale leen. et comme l'a dit Bouba c'est vraiment pour créer une saine émulation. Ah, c'est vraiment pour que cela fasse pour que cela on va pas dire que nous on va réussir cette initiative mais au moins que les gens aussi a pas déjà des exemples parce qu'on n'est pas les premiers il faut le dire kontaan nañu lool on va faire euh, comme affaire de gan euh, publicité bi yow yaa koy annoncé parce que normalement Alfi moo war togg donc Beurre Sofia mooy euh, euh, spot bi war a jàll léegi nii pour finir dama lay bàyyi nga annoncé publicité bi mais dañu bëgg ñun nga invité ñu ñun ñëpp Kinkeliba. incha allah Badara Kane le rédacteur en chef de Kinkeliba est en train de m'écouter. l'invitation est faite en direct on a rien à dire Alioune Badara on vous l'invitation est <laughs> c'est tout ce qu'on veut voilà. je, je pense que c'est parti d'un bel esprit et pourquoi pas parce que moi je dis que yëpp benn la. on veut nous on veut yëpp benn la. nous parce on que veut. moi mon premier poste c'est pas la RTS. ah oui donc on vient tous de quelque part. si suñu ko deful je ferai tout pour demander à à l'équipe de TV5 Monde ñu jëlaat la nga dellu ci ñoom voilà.